géero géer ñaa ngi nii daal muhammadu rasulullah abdallah baay ba mustafa amina yaayam xayrul anbiya lu waay jàpp na bee waa ba tey tamit eh, comme niñ leen ko waxee noonu waa ci deuxième partie bi aha parce que bu ñu nee jigéen tam macha allah ne say waaw bu ñu nee jigéen ne sëy te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi ñuy tegtal nee na tey bu doon tegtal tey nit muy wut soxna mi ngi ñuy tegtal nan kan nan ngay wutee soxna aha boo demee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi nettali ne nee na takk leen soxna nee na ci ñeenti mbir uhuh, soxna dinañ ko takk bi arbaa li jamaaliha ah, wa maaliha wa xasabi xasabiha wa nasabiha li diiniha waaye wax faxtar bi zaati diin nee naa soxna dinañ ko takkee ci ñeenti yëf tànnal soxna ci ñeenti mbir macha allah nee na bi ci njëkk mooy taaram am ñoo xamante ne macha allah da takk soxna parce que ndax lan ah macha allah kii neex na présenté macha allah rafet na fa tabarakallahu nee na tamit di dinañ takk soxna tam ngir alalam kii kat am na alal mën naa ci dugg macha allah ñu ànd jaamu yàlla xëy na sax mu suqali ma aha nee na tam takk soxna tamit ci lan nee na ngir askanam mhm, ñii kat seen askan macha allah ay sëykat lañu waaw ay doomu sëykat lañu macha allah boo fa amee soxna dina la sëyal dina la muñal waaw ñu daal di ne nag di nga takk nag soxna nag nee na ci diineem nee na nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag nee na su la doon digtal ci ñeent ñooñu nee na kan laa la ciy digal pour nga takk ko nee na nag faatar bi zaati diin nee na nag na takk nit ki ndax lan macha allah ndax diineem mhm. na nga takk nit ki ndax diineem parce que fa tabarakallahu xëy na nit mën nay changer jamono macha allah mais diine dangay gis ne nit ki xëy na diineem bu tolloo fii macha allah day xalaat lu koy gën a yokku aha da ngay xalaat nan lay gën a def ba gën a doon dëgg-dëgg jullit da ngay xalaat nan gën def ba sama ngëm gën a yokk saa yu xëyee te defe naa ci biir diine macha allah bu ko defee di nga am taar mhm. nit bu gëmee yàlla macha allah il faut mu am taar rafet waaw nit bu gëmee yàlla il faut sax macha allah mu am alal parce que nekkul alal ja mooy lan mais nit bu gëmee yàlla gëm yonent bi sallallahu alayhi sallam yàlla dina la yenkewal nit ñi mu ngi noonu macha allah may la ay nit ñoo xamante ne te fii suñu Sénégal da ngay faral di dégg ñu ne la boy bu nit ñi xëyee di wuti alal yow amal nit ñi macha ndax ci biir nit ñi ci ngay amee sax alal mhm. nit day xëy xëy na di wut ay dóor dërëm macha allah di wut ay téeméer di wut ay mille francs yow nga am nit ñi macha allah ci biir nit ñooñu nga am ku nekk bu la compale saa ñi fukki dërëm defe naa macha allah xëy na yow am nga nit ñi am nga alal fa tabaarakallaahu kon xëy na ba foofu noonu mu ne ndax lan ngir alalam mu ne lan tam ndax askan mhm. askan tam macha allah tam comme niñ leen ko waxee noonu nit ki bu aw askanam baaxee parce que tam ba tey tam ci beneen xadis tamit ñoo xam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tam ni ñu fay nettali mi ngi ñu fay nettali tamit mu naan ñu bokk ci beneen xadis bi tam mi ngi naan waxal ñi nga xamante ne ni aha mi ngi ñuy nettali ci beneen xadis nee na nee na bool booy bay wala gàncax mhm, nee na bul wut gàncaxuk sën waaw ndeysaan parce que tool bu naat macha allah jigéen foofu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam war la gën a neex jëfandikoo lekk bu sell ak waa agroalimentaire bu ne carré waa kër Serigne Babacar Sy radiyallahu taala anhu ñu indi leen ay produits yu sell te wóor caakri couscous loolu la nga xamante dañ ko defar ba noppi en 10 minutes rek nga mën ko daal di jëfandikoo alimentaire bu ne kaaxee waa kër Serigne Babacar si radiallahu taala anhu yan mu foofu daan ñu indi li nga xamante ni moo di poisson séché di géej jus de tamarin beurre de karité yéeg confirmé bisaab bu xonk ak bu weex boobu moom dañ leen koy daal di defal ay jus yu mucc ayib waaye yéen ñi doon yittewoo l'impur wala li nga xamante ni moo di pañ tuufa ba kooku moom dama naan kasumay kasumay képp sama mbokk Ziguinchor waa Casamance ma ne daw leen a gaaw seeti waa agroalimentaire Ngoné Kaaré waa kër Serigne Babacar Sy radiyallahu taala anhu da nga fa fekk ki nga xamante ni moo di directrice bi nga xamante ni moo di soxna Umu madame nga xamante ni yéen a féetewoo ci diwaanu Europe mën ngeen ko daal di woo ci 07 82 05 77 35 ah bu fekkee yéen ñi nekk fii ci diwaanu Sénégal bëgg a jokkoo ak moom ci diwaanu France mën ngeen daal di def 00 33 782 05 77 35 5 rue Marcel Madimier 8700 Limoges France bu fekkee fii ci diwaanu réewum Sénégal mën ngeen ko daal di woo ci 77 802 15. adresse su Sénégal bi rek di ko fàtt rek mu ngi nekk fii ci Yoff Ndëngaañ près du marché de Yoff. yéen waa Europe ak waa Sénégal seen jaaxle jeex na ak waa agroalimentaire bu ne carré waa kër Serigne Babacar Sy radiyallahu taala anhu dund. bu ànd ak bànneex ak xel mu dal mi ngi naan denc leen soxna nee na ci ñeent aha tunkihul mar'a li arbaa aha bi diiniha wa li jamaliha wa li maaliha wa li nasabiha waaye faatar bi zaati diin mhm. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi nettali ci xadis boobu nee na takk leen soxna nee na ci ñeenti mbir aha takk leen soxna ndax lan macha allah waaw ci taaram mhm. takk leen soxna tam macha allah ngir alalam takk leen soxna macha allah ngir lan ngir askanam waaw ndax lan kii kat dafa am askan mu baax macha allah nee na nag waaye fantar bi zaat diin mhm. waaw takk man nag su ma la doon digtal man yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dama la naan takkal bi zaat diin takkal ki nga xamante ne macha allah soxna la soxna su am diine macha allah parce que soxna su am diine diine boo ko amee macha allah lu mu tuuti lu mu néew macha allah saa yoo xëyee da ngay jéem a góorgóorlu ndax lan lu yokk sa diine mhm. ndax lan di nga muñ comme ni ñu leen ko waxee noonu ci saaru ahzab bi macha allah kon mi ngi lay digal muñ kon yow mii di jigéen li ñu lay njëkk a digal ci première sëy bi bu ñu conseillé yi ñu leen ciy jox mooy lan muñ waaw mais bu ñu nee muñ tam macha allah muñalante te pour nga muñ tam il faut nga am diine pour nga muñ il faut nga am diine macha allah soo amee diine mën nañ ne di nga am taar mhm. soo amee taar macha allah mën nañ ne xëy na di nga am alal xëy na nag alal dafa bari ay façon mi ngi noonu macha allah parce que bu ñu nee alal nit ñi sax boo amee ay nit. macha allah rek mën nga ne mën nañ ne yow ku rich nga parce que nit ñi macha allah ñoo ëpp ñoo ëpp doole alal mi ngi noon noonu ndeysaan moo tax mu dénk la yow ki nga xamante ne yaay wut soxna wala yow góor gi nga xam ne macha allah yaa am soxna sax fexal sa soxna sosu nga am aha nga def ci moom diine waaw ndeysaan parce que des fois ñu bari dañ koy faral di jàmbat ah man de sama soxna xëy na diine ja daa des wala sama soxna du julli macha allah mais yow mi nga xamante ne yaay mottali yaram mhm, yaay borom këram waaw macha allah yow yaa ko jël takk ko indi ko ci biir kër gi kon fa tabarakallahu kon léppam yow la war ni la dundam ak leneenam ak leneenam waree noonu tam la la jubbanteem tam macha allah ba indiwaat ko ci lan ci diine di ko fàttali li ko war digganteem ak boromam tam macha allah yow mi tam di borom kër gi tam dañ la ko dénk te yow tam macha allah ci nga bokk ba tey tamit soxna si tam macha allah dafa war a doon soxna ndax ci biir soxna si ci nga mën a yaree sa njaboot comme ni ñu ko waxee ñu ñëwaat ci yar encore mais na ku yaruwul nooy mën a yaraatee il faut nga am yar yow mii di soxna macha allah xam ni nga yaree sa njaboot macha allah parce que occupation wu yar yëpp lan lañ koy jëlee umuhaat parce que dañ la ne ba ci aw xeet ñu ne ñan aw xeet buñ koy wax ñan ñoo yor xeet wa ñu ne nday lay ndayu xeet wa mooy leen ay jikko mais ci biir jikko yooyu tam macha allah ci jigéen ji lay doon jigéen mooy mën a jël yenn jikko yi di ko transmettre ay doomam comme ni ñu leen ko waxee ci émission bi passé waaw di jéem a gérer macha allah sa njaboot des fois mu neex nga gérer des macha allah mu naqari nga gérer parce que nag te nag gàcce nga laama jigéenu Sénégal macha allah bari na fi ñoo xamante macha allah lépp lu ñuy daw macha allah pour seen i njaboot aha di daw macha allah ndax seen i jàppale seen borom kër waaw fa tabaarakallahu parce que nag ci biir muñ gi lépp day ñëwaat ci biir muñ gi lépp tam macha allah day ñëwaat ci sa biir diine te tamit ñu fekkoon fi tam macha allah suñu maam yi aha ndeysaan comme niñ leen ko waxee suñu maam yu baax yooyu mën nañ tudd ñëpp maam macha allah mais nag xëy na lu ñuy wax rek li duuf ci nag bi dafa xajul ci cin wi xajandoowut ci cin wi dañ koy dogat dogat macha allah par benn benn rek mi ngi noonu ndeysaan suñu maam jaariyatullaahi Buso ne nañu jour bi mu ko waree macha allah jëlee këram mu fa séenee dem kër borom këram dégg naa dafa xas waaw suñu mag ñi dañ daan waat ne bu soobee yàlla dinaa dafa ndeysaan dégg naa dafa julli ñaari rakaa teen daal di ne ah ñu ne ko fës naa yéenee juru a yonent ñu ne ko wax dëgg yàlla nag yonent yi moom dañoo jeex xaatimu nabiyiina mu imaamul mursaliina ñëw na ba jàll te kookoy Muhammad sallallahu alayhi ma ci jaaxal waaye incha allahu dinaa fi jur doom ju ñëpp di dégg kooku mooy kan defe naa mooy suñu maam si Ahmad Bamba Xaadim Rasul defe naa ñëpp gis nañ macha allah ay jalooreem foo ko tudd ñëpp xam nañ ko ci àdduna bi ba tey tamit ñu ñëw tam ci suñu maam Cheikh Sidi Xaaji Maalik radiyallahu taala anhu moom tam suñu maam faa waat di wele ndeysaan moom tam di yaayi maam Maodo nga gis ne ndeysaan moom tam hadiya tax réew bi riir aha jooju mu jëloon macha allah muy ab sërëm ndeysaan daal di koy yónnee ci Cheikh Omar Foutiyou taal ne ko soo demee na ma ñaanal ma am góor yàlla moom tamit nekkoon jigéen yoo xamante tam ci histoire am ñuy nettalin ni mu dëkkee woon jumaa ja ak jàkka ja mooy bale mooy nettuwaaye mooy fomp ndeysaan jël boppam jébbal ko yàlla borom bi subhanahu wa taala ba tey defe naa mu am doom moom tam macha allah woo xamante ne tam tax na réew mi riir ak naasiril xaq bil xaq kookoy suñu maam Fawade Wele ñoom ñëpp macha allah am nañ ay exemple aha Sénégal am nañ ay exemple jigéen yu baax boo ñëwee ndeysaan dem dema demal Kaolack macha allah wax la suñu maam aha moom tamit nga dem limaamu Kumba Ndooy nga dem Kuntiyu macha allah mu nekk ay soxna yu baax a baax a baax ay soxna yoo xamante ne ay exemplaire lañu ndeysaan ba ci histoire suñu maam jaariyatullahi bu so ndeysaan bañ la naan mës naa jël sax aha ñu ngi lay nettali histoire am ñu naan mës na jël sémmiñ di xar gaalam ñu ne ndax lan ñu ne ndekete booba day bëgg a tàngal di kafe di bégal sëriñam kon nga xam ne fa tabaarakallaahu xëy na tam ñun tam ci des jigéen ñaa ngi yeewu ba teel fajar ndeysaan soo duggee ci oto yi ñoo ciy fees dell macha allah amuñu heure ci xëy amuñu heure ci wàcc ndax la lépp pour jàppale seeni borom kër ndax lan pour jàppale seeni njaboot kon tam loolu tam doon lu jara bàyyi xel parce que nag dañ naan liggéeyu ndey añu doom aha bu ñu nee liggéeyu ndey ñu ne añu doom macha allah te yaay mooy xas yaay moo sañ jàkkaarlook doomam ne ko bu fekkee li ma liggéey sa kër baay gii yàlla rek a taxoon ma di ko def xam naa ne macha allah di nga jeng waaye doo daanu te xam naa te xam naa incha allah yaa ngi saxaarte bu soobee yàlla da ngay tàkk loolu soxna moo ko mën a wax mais nag ñun soxna yi ñu dellu <laughs> gën a fonkaat macha allah suñu sëy yi gën a fonkaat gën a teewaat te xam ne li naan ñaar bu ñuy liggéey te lu ci yàqu ñu jéeñ ko kenn ka kon kenn ka war na góor góorlu parce que bu doom baaxee ñu ne yaayam <laughs> bu doom safaanee ñu ne ndeyam kon nag fa tabaarakallaahu ñuy ñaan yépp rek lu ñu muñ ci suñuy néegu sëy lépp lu ñu sëy ci suñuy néeg yal na yàlla def macha allah njaboot gi barkeel njaboot màgg macha allah doon ñoo xamante ne nii taykat dinañ na ah sama yaay. waaye tam damay blâmer tam yenn jigéen ñi waaw ñi nga xamante ne tamit xëy na tam xaw ma facilité la xaw ma naka lañ koy waxee tamit mi ngi noonu des fois tamit aha nga jël sa njaboot parce que dañu ne njaboot mooy trésor. njaboot mooy trésor waaw macha allah nga am sa njaboot mu sa trésor waaw nga war ko defar mhm, njaboot danga ko war a defar danga war a sonn ci moom danga ko war a liggéeyal mais macha allah nga jël ko def ko facilité yaa ngi fanaan ci mbedd bi di yenn ci mbedd mi yow ban temps ngay jox say njaboot xëy na yaa ngi fanaan ci mbedd mi yaa ngi yenn ci mbedd mi ban temps wala ban exemple bu rafet ngay jox say doom ndeysaan mu itam ci yenn mbokku jigéen yi bu dee da ngay jaay caaf sax góor góor lu ca macha allah mu doon loo xamante ne ëllëg mën na barkeel ngay jënd kaye xëy na muy ngay barkeel ngay jënd euh, bik macha allah loolu mën na barkeel sa njaboot ba nga xamante ne ëllëg dina ñu ne doomu diw gi fa tabaarakallah mais ngay fanaan ci mbedd mi di yenn ci mbedd mi jàngal sa doom yaa ngi ban exemple nga jox sa doom sa doom bu la nee yaay fooy xëy loo koy wax. sañoo ànd ak moom wala nga ànd ak moom naan ko kaay def ni may def kon nag jigéen ñi nañ leen gën a takkaat ndigg yi macha allah di ñaan yàlla njaboot gi barkeel góorgóorluwaat ci sëy yi macha allah te xam ne kat yàlla borom subhanahu wa moo ñu ko wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nettali waan nañu ko na nañu man amila saalihan fa li nafsi wa man asaa fa alayha képp ku def lu baax kat defaloo ko kenn sa bopp rek nga ko defal waaye képp ku def safaanit macha allah defoo ko kenn sa bopp nga ko defal kon nag ñu gën a góorgóorluwaat macha allah gën a téyewaat te xam ne rek ah lu waay jiw macha allah ala kulli xaalin da nga koy góob lu waay jiw ala kulli xaalin da nga koy góob waa di nuyuwaat ñëpp tamit rek macha allah di waat ñëpp waaw di ñaanalaat ñëpp nag macha allah jàmm aha li nga xamante ne macha allah tam moo dellu siwaat ci àdduna bi aha ba ñu naan dellu siwaat ci suñu biir réew mi macha allah muy lan ñu naan ko coronavirus aha nekk nattu bi maanaa nekk feebar mi nga xam ne rek macha allah jaamu yàlla aha ndigalu borom bi subhaanahu wa taala rek lay dox te saa yu ko neexee macha allah mu téyewaat ko delloo ko fam ko dencoon ba sax dootuñu ko gis ñuy ñaan nag ci mbaaxam macha allah ak ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw mu musal ñu ci aha musal ci àdduna bi yëpp aha yàlla mi nga xamante ne moo mën te sañ te attan waaw ñuy ñaan parce que nag moo ne addu'a silaaxul mu'min ñaan mooy ngànnaayal jullit fa tabarakallahu amuñu lu dul ñaan ñuy ñaan yàlla musal ñu ci musal ci àdduna bi yàlla téye ko waat delloo ko fam ko dencoon ba sax kenn dootu ko déggati kenn dootu ko gisati ba ci suñuy sët ak suñuy sëtaat waaw di remercier nag bu baax a baax a baax macha allah waaw sama mbokk yi <laughs> su ma nee mbokk nag macha allah njëkkee samay doomi bàyyi sama wàllu famille Thialène mi ngi noonu macha allah gis naa niñ may soutenir waw ci ay conseil macha allah bàyyiwuma kenn ci Thialène waaw ma ñëw nag ba ci mbayem gi tam macha allah sama wàllu famille yaay mbayem mbayem gi ñu may soutenir aha bàyyiwuñoo benn yoon macha allah ci di seetaan mhm, ci di partager maa ngi leen di remercier ñoom ñëpp tam ci mbayam gi tam macha allah ma ñëw tey tudd fa nag ñaari nit ñoo xamante ne mën naa leen tuddee samay sponsor waaw saan ku mel nii Babacar Ba mhm, Amérique du Nord macha allah waaw daf may daf may sponsorisé bi maanaam macha allah di ma jàppale ci biir ak ci biti ku mel ni tamit waaw. Maguette Ba jam ñaajo moom tam macha allah ak famille mbayam gëpp ñaar ñooñu laa tudd macha allah ci mbayam mbayam yi mais yóbbaale naa ñëpp sama doomu nday yi macha allah aha comme ni ma ko waxee doomu yi mais xarit yi ma ñëw ci ñoom soppe yi ak sama client yi mhm, sama cliente yi nga xamante ne ak sama client yi dañ may jàppale di jënd ci soxna Xadi te yàlla tax macha allah di ma jàppale tamit des fois ñu ne ma kër allo Xadi foo ne ñëwal jox nañ la lii ak lii ak lii ñooñu aw ma seen fay maa ngi leen di remercier bu baax a baax a baax di nuyu nag tamit waa famille Traoré waaw muy sama famille borom kër Ndiobène googu ñoom tam macha allah sama borom kër maa ngi nuyu di ko ziar ak famille Traoré yëpp bàyyiwuma kenn waa nag dem nag ba nuyu ta amit si waaw moom tam madame la directrice nga xam ne tam dafay jàppale soxna Xadi parce que nag olof Njaay nee na ku ñeme dañ la déey fa tabarakallahu fàttew moom fa tamit ñilaan Njaay waaw nekk sama xarit di allah fa tabarakallahu madame Guèye a direction pharmacie yëpp teg naa ko sa loxo nga jàllale mal ko macha allah dañ may conseiller di ma jàppale bëgg li may jaay te yàlla rek tax di ma jàppale ko nag fa tabarakallahu nuyu daal képp kuy bégee soxna Xadi waaw ndeysaan di ma statut ndeysaan gis naa ko di envoyé ndeysaan les liens ndeysaan soxna Xadi yéen ñëpp aw ma seen fay sama doom yëpp nak waaw macha allah parce que nag dama njaboot ñu ngi noonu macha allah fa tabarakallah nuyu naa leen yéen ñëpp ziyaax leen nuyu tamit waa buun waaw fi may yeewoo di are yaawu jaal waaw maa ngi leen di nuyu lu bare bari di leen ziyaaxa dem ba Grand Médine nuyu waa Grand Médine parce que mën naa ne ñaari dëkkuwaay laa am sama waa daaira Muxlisina ziyaar leen di wax rek wa axiru daawaana xam naa nag li duuf yëpp dafa xajul ci cin li suñu sañoon ñëpp la ñuy tudd waaye di leen wax rek wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullah fi amanillah xayrul anbiyaa lu waay jàpp na be